salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun ci site bi di 24 actu euh, tey nag dañ leen andil loo xam spécial la tey fas yéene ñëw seet si kilifa goo xam ne ni mën naa ne ñu bëri xam nañ ko ci li nga xam du mën a réew mi àdduna bi sax laay wax boo waxee dinañ xam euh, lu mel ni nag baaxoo du ko def tey ñun la ko jox pour ñi nga xam ñooy seetaan sëriñ bi ginnaaw bu ñu nuyoo. aleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu yëpp di leen fay di nuyu waa àdduna bi yëpp. di nuyu waa Sénégal di leen wax ne tamit euh, ñun moom kilifa lañ lii moom tey la musa am tey jii la musa am waaye nag euh, comme te àdduna lii moo fi ne nga xam ne yow dangay gis ay sëriñ ñu nekk ci dëkk bi ñii ñu ngi dakaar ñun fii ñu nekk nii gis nga kër yaa ngi na la ci kaw ñun fii ñu nekk nii lu ñu gëm mooy dëgg ligg si am na ñu ko soxla lool mu jaral leen fen jaral leen kàcc waaye ñun ci dëgg lañuy dox te ñun lii saa boo gisee ñu def ko lu munta ñàkk parce que nit ñi ñooñu ko proposé moo tax ñu def loolu maa ngi nuyu ñëpp di leen fay yéen itam waa kii activi 24 yi maa ngi leen di nuyu bu baax di ñaan seen seen bi yàlla suñ borom defal leen jàmm daal lii moom lii moom defe naa ne yàgg na bu dee mbiru lii du cosaan la sax waaye galaaj la ndaxte àll bi ñu nekk nii bu fekkoon ne tey jii dañu bàyyi suñu bopp nii rek yéen xañ till mun na leen fekk fii wala jaan fekk leen fi waaye loolu moo tax ñu protéger protéger wu leen yéen tamit ci suñ seen bopp waaw xam-xam bi mun nañ ko jàppee ñuul mais xam-xam bi man gisuma bu ñuul gisuma bu weex xam nga lan la xam nga defal nit ki mu gis li nga ko defal ndax defe naa ki yor alxuraan di bind dafa bëgg rek nit ki gis lu leer nañ ki yor leneen tamit di def dafa bëgg nit ki gis lu leer ñun daal lu leer ci la ñuy dox daal lu leer lañu xam mooy xam-xam bu ñuy liggéey bagage yi nga fi gis nag dañu koy defal sarax ñun suñu maam yi dañu nekk nit ñu nga xam ne dañu leen a jàppale ci wàllu xam-xam man suma bàyyi fu mu toll nii boroom xam-xam la deewul mu ngi ci àdduna suma yaay boroom xam-xam la boo ko indilee dof mu faj ko yaa ngi dégg man tamit maay caat ci ñi nga xam ne moom lañu mooy suñu famille maa ciy caat sama yaay bu muy jóg pour jox ñu xam-xam li ma war a donn ci moom dañu dem ci benn garabu taba man dëppuloo nañ ma ba tàyyi dëppu ma heure bu ma xoolee gis ma sama ginnaaw damay topp ba ma réer ko après ma del si bu demee ma topp leen nii comme ni àll bi nu mu demee bu ñu demee tamit ci garab yi suma ñaari mag yooyu ba léegi dañu dof kenn gi dee na lan moo leen dofloo xam-xam bi nga xam ne moom lañu waroon a jël dañ ko dañ leen ko jox yéene leen ko fekk attanuñ ko parce que comme garab bu mel nii am na ñoo xam ne dañu toog ci kaw garab bi mais amuñu amuñu ndigg fii la seen jëmmu yam après su mag yooyu maa ngi leen ñàkk naa leen kenn ki dof na ki ci des faatu na yàlla na ko yàlla yërëm xare ko ajjana man nag après bu ma su ma yaay bu mu gestoo gis ma mu wax ne ma yow waxoon naa la dëppal ma ne ko ah man de wax dëgg yàlla waxoon nga ma ko kay waaye nag mënuma dëpp parce que maa ngi gis ngaa ngi ànd ak suma mag yi ci la ma waxee ne ma gi naa gisoo li ci ma ne gis naa ko kay seen karaw yi mu ngi wàcc mais nit yi amuñu ndigg mu ne ma jërëjëf bis na nga tey lii sa maam yoroon nga xam ne per buy noyyi la sa maam moo ko yoroon yow la doon wax sën bi parce que ñun suñu maam jinne la wallahi azim dëgg moo neex yàlla sama maam man jinne la boo gisee ku jinne jàpp indil ma ko Sénégal kay mu ngi nii boo gisee ku jinne jàpp indil ma ko xam man toog di wane bës ay kii nii karang man loolu xaw ma ko man lu ma xam mooy nit ki di wax dëgg daal parce que Sénégal fu mu toll nii dañu sonn ci fen yi quoi man lii nii yàlla xam na ne comme maay liggéey ak nit ba mu gis sama pouvoir te yàgg nañ ma ko imposer Dakar indi nañ ma fa ba tey maa ngi nuyu Pape Diouf musicien bu baax a baax di ko nuyu di ko ñaanal yàlla lim gën a bëgg ci musique bi mu gën ko am ak ñeneen ak ñeneen xañ na du ma tudd turu kenn waaye nag kooku Euh, dinaa ko ñaanal bu baax daal dinaa ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax waaye man lu ma gëm ci sama àdduna mooy dëgg te bañ a nekk naan dangay tappale quoi gis na fi sëriñ yu bari yoo xam ne tappale daal dañu yaakaar ne duñu dee daal bëggal place fu la neex marché bu la neex bëgg ko ñëwal si man ne ma kii place bii laa bëgg place bi laa bëgg kay jeex na boo ñëwee te amul booy ñëw saa jarul bul indaale dara nañ deflante ba nga gis ne loo ñuy xëccoo man maa ko moom lu ñuy xëccoo man maa ko moom waaw bu ma la defalee nga gis amul ma dem te ñëw waaw. jigéen ñi <laughs> ñooñu moom dama leen di am lu ma leen takkal ki nga xam ne na xam nga loolu dafa bari façon nit ki mun na ñëw ne la dafa bëgg borom kër yaa ngi dégg mais am na ku koy doxaan nga xam ne diw la bëgg waaye ki nga xam ne amul kenn ku ko nopp kooku peut-être mun nañ ko xoolal xam ba xam rab moo ko jàpp. wala ñu xool ba xam lan moo nekk ci yaramam voilà buñ ko defee dinañ xam waaye ku nga xam ne daal yow kenn nobu la ah, loolu moom mun nañ la ñaanal nga am jëkkër ci lu gaaw lu gaaw sax amul ma dem te ñëw waaw ah, quarant jours lañ la koy defal xam nga bu ñu waxee réew mi réew mi waa dëgg yàlla réewu Sénégal la te dëkk bi ah, doy na waar doy waar goo xam ne a ah, man mun naa la wax daal ne la ndaw ñi jamono bi ñu toll xëram dafa bari Sénégal fenn dafa bari Sénégal tàppale dafa bari Sénégal di nga liggéey ba yaakaar ci dara nit ñëw na ko coppet mu yóbbu ko te foo gis ci àdduna nit ki bu amul biir këram kenn du ko kenn du ko lijjanti te nit ku nekk boo sañoon nga def nii toog sa biir kër am ceeb am diwlin nga am li la arrangé nga am soxna yi te kenn bañ a dem fenn di ñaan léegi nag loolu bu fekkee ne yow amul amuloo ñaan mënoo gis ku la dimbale koo dem mu fenn la nooy def fu nga yaakaar sa xel ngay dawal rek waa réew mi nag moom nañu xam ne ñun senegal bi moom réewu jàmm la réewu jàmm la képp koo xam ne yaa ngi dox ci jàmm te nga bañ a yàkkamti sa wërsëg te nga timit bañ a xeeb sëriñ ndax kuy làmbatu bu yàggee di nga daj aduna nag boo fi nekkee il faut même man mii sax ñu nax ma léeg ñu wax ma lu dul dëgg man doon naa man bu may commencé li yàgg na man ci laa juddu ci xam-xam laa juddu de waxuma dama dem eh, dem fële jàng xam-xam ma ñëw su ma bàyyi boroom xam-xam la su ma yaay boroom xam-xam la te ñu ngi dund ñu ngi may jàppale kon léegi man fu mu toll nii daal suma mbir moom Euh, si dëkk bi am na yu bari na yu ñu xam waaye yooyu du ñu ko wax seet juróom-ñaari seet laa yor yu bokkul damay tomb lu ñuy wax ramlu waaw ah, damay seet ci ndox damay seet ci butéel am na seet boo xam ne te bu ma koy def mbir mi ci boppam moom ngay waxal directement waaw dangay taxaw mu mu ñu def li ñuy def nga wax ak mbir mi moom ma toog ne noppalu moom mu wax ak yow wax la sa sara nga dem def ko seet dañ koy liggéey juróom-ñaari façon seet lañ yor yu bokkul ñun affaireu kayit liñ ci xam mooy nit ki bu fekkee ne dafa yàgg réew ma te amul kayit wala muy door a ñëw amul kayit ah loolu il faut ñaan bu ñu lay jox dañu koy def ci bàgg waaw ci jaaroo lañ koy def loolu lijjanti day sotti incha allah bu fekkee ne nag réew ma nga nekk jaaro bi dañ la koy envoyé par Euh, comme ni nga koy yónnee rek bëgguma tudd benn société. mun na ma toog fi ma toog bu fekkee yaa ngi Sénégal foo toog jaaro bi fekk la foo toog jaaro bi da fekk foofu Sall daal nu ñu ko gisee moom xam naa ne moom wax dëgg yàlla président la boo xam ne jantal la quoi jantal la parce que yi muy jéngu yëpp ah euh, di ba pare di ko woyaale jantal la quoi jantal président la man nag ñoom ci seen i biir bagage ak seeni i mbir ah, xam naa sax luy xew waaye nag am na ci loo xam ne dama ciy laal pital waaw am na nag koo xam ne moom soxla naa ko bu baax muy muy muy muy Bougane Gueye mhm. waaw waaw kooku moom am na lu ma gis ci moom waaw am na lu ma gis ci moom mais nitu nit ku baax la boroom xol bu rafet la et nit la koo xam ne sin si wax dëgg yàlla xamul sax boppam waaye man de kontaan naa si moom quoi te maa ngi koy ñaan Ousmane Sonko vraiment man musuma ko gis ak bët xamul fu ma nekk milliards yu mu yoroon yëpp bu ko dee bu ko bu ko fayoon ci àdduna pour mu gis ma mënul ma gis xanaa mu jaaree ko ci ni mu def rek bañ jàkkaarloo mais bu dul loolu waaye gis naa ne moom itam borom mbir la te ala xalin ñu ngi koy séentu bu baax mais buggaan maa ngi koy nuyu bu baax. waa loolu moom loolu moom ku nekk xam na ne bu amee a ah, len de len dong laa la ci xamal de <laughs> loolu moom loolu moom ah, liñ la ci mun a mosal mooy du am déedéet du am hmm. loolu moom dama xam ne rek ah, du am man xam naa loolu du am hmm. waaye man amul tëdd di nelaw man fii ma toog laay gisee lu may gis maa ngi dend ak suma bagage yi ñëpp a ngi wax ah doo waaw affaire tawat bi moom wax dëgg yàlla maa ngi nii ak maska parce que ngelaw bi man dama koy gis chaque jour waaw dama koy gis bu ñu wax ne loolu amul lu am la dama koy gis nii te bu la jàppee doo ko mën a xam mu fekk sa put nekkul di wow mais nag am na garab bu nga xam ne wax dëgg yàlla baax na ci lool baax na si parce que man ba ma juddoo ak léegi nii benn yoon laa musa pikiru mooy bu ma bu may def nii mhm. waaw loolu moom wax dëgg yàlla xam na boo ko joxee sax nit ñi mun nañ ko pirate ku nekk euh, wax ne xam naa garab bi xam naa xam naa lii xam naa lii wala xamoon naa ko bu yàgg di seega man loolu daal xam naa ne moom waa Sénégal li tax dérangé wu leen feebar yu mel noonu dañ ko miin waaye nag bii bokkul man gis naa ngelaw bi waa gis naa woote ci waxtu bii lay ñëw comme sedd bi nii mhm. waaw ñu moytu bu baax te ñuy jël masque yi di ko takk parce que loolu dëgg la ma waaw bagage yi moom fii ay bagage yu fi nekk lii euh, suñu mbir la mu nga xam ne bu ñu ko ànde ñun ànduñu woon ak moom ànduñu woon ak moom man dara dabuma parce que su may kilifa ñoo doon liggéey jox ma tuuti secret ma yor ko moo tax ngeen xam ma buñ ma joxoon lépp sax xañ na kon du am na loo xam ne duñ fa yegg bagage bii ni lii maanaam nit ku nga xam ne ci mbooloo nga nekk nga bugg a téye nit jàpp ko comme li nga def affaire place yi dafay nekk yaa ngi dégg lancette yi nga gis ni téeméer lay doon ak juróom-ñaar fukk képp ku ko sangoo sëriñ bu nekk Sénégal la la ak ba ci man mii bu ma la jéemee liggéey bu guddee safara moo lay war te bu bu fekkee ne bu fekkee sëriñ bu xamul dara la du gis safara bi waaye bu fekkee ku xam dara la jël sa tur bëgg ko liggéey day gis safara bi su ko gisee nag léegi nag moom bu bàyyiwul sa tur sëriñ bi day gumba bu la neexee nga jox sa tur sëriñ yi man ma jox la garab bi nga sangoo su ma digganteeg yàlla ne fexe leen ba bant nii dugut jàmm ku ko def gumba sëriñ yépp nag laa wax waaw loolu moom loolu moom mi ngi aju parce que yi dañu gën a sonnante ki ñëw mënul taxaw man dama koy jël xooluma ki nekk ci ràng bu mujj bi te fii gaa yu baax ñoo fi nekk ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ may jàppale di ma dimbale si comme nit ñi nga xam ne dañuy ñëw si man ñoo fi ñëw te ku ñëw ku ne dinañ xam sa soxla sa xam soxla bi mooy naka nga gën a sonne ñun ku ñu folleek ku amoon place mu réer laag koo xam ne sin sii dafa nekk ci xat-xatu àdduna ba mu jaral la xaru boo ñëwee fii doo xaru lu leer laa la wax nii waaw parce que xam-xam moom nekkul dakaar luxe bi jël photo yi nooy toog seeg yooyu man su fekkoon ne maa ngi dakaar nii xam naa sax foofu danaa fa dem léeg-léeg wala man nekk yeneen côté yu dul Dakar Mali wala feneen man garab yu ma war a jël ku ma jox liggéey damay ñëw fii ci àll bi ma liggéey ko ba pare

lenn yi daal man ku nga xam ne sin si sa sëy góor goo xam ne dafa télé bu ñëwee balaa génne dërëmam na wér ba noppi bu ko judduwaalee nag man mënuma ci dara waaw bu ko judduwaale jarul mu fii ñëw mais bu fekkee ne judduwaale ko dafa dab bu ñëwee ma faj ko mu door a fay mu door a fay alalam mais moom ci ci biir kër gi lay jógale moom loolu moom leer na Hmm. Euh, waaw jigéen bu taxaw loolu ñun loolu garab bi moo koy liggéey hmm? waaw bii moo bii moo koy liggéey garab bi séng la hmm, moom la tur waaw secret bi moom nañ leen wax rek ne leen koo xam ne si ne si yàlla dafa dogal nga bugg Euh, sa nga bugg sa mbir dox te mënoo fexe mu dox dangay wut euh, comme loolu sax xam naa dox gi duma ko tudd mais naa la naa leen fajar rek benn jàngoro muy asma sonal na waa Sénégal trop waaw dama koy faj loolu laa leen di may sax directement ku ko def gis ko waaw léegi ñoom kàdd yi xam nga garabu baadoo la dafa am guy ak na euh, ak kàdd guy bi dafay dafay dafay rouge heure bu nga xamee ne noor bi jot na kàdd dafay sëq bu nawet bi commencé ñoom ñaar daal mënuñu bokk mënuñu bokk saqaay bu bii di sëq rek bii mu ngi rouge kadd heure boo gisee muy commencé jabi boo demee da ngay teg foofu juróom-ñaari bekk suukar ñas la sant boo ko nuyoo garab bi ñas la sant bu am dëj boo ko nuyoo ba pare nga daal di coppati foofu noonu ci suuf bi nga nga sànni ko boo sànnee dara ci suuf bi ci kaw léegi nga jël xeer nga sànni ci xob yi ci kaw lu jot ruus bu dee benn xob sax baax na comme ñuy faj asma te mënuñu ko bu dee benn xob baax na loolu buñ ko woolee ba mu wow kuñ <laughs> ko jox mu wér ku ko naan wér ku ko naan wér ku ko def te wéroo ñëwal fii ne ma waxoo dëgg da wér waaw jabeer mënuma ci dara xawma ci dara quoi hmm. waaye yooyu moom da ku ñëw te jógaloo moom dangay ngay jógal kay kii man am na waaye ah, kii man am na parce que da ngeen ma fekkoon sax ma doon liggéeyal ku nga xam ne moom dafa waroon dee te liggéey boobu buñ ko defuloon day dee bakkanam lay ñàkk incha allahu rabbi du dee <coughs> du dee de ndax nit dinañ ko liggéey pour mu léegi nag moom du dee ah, wëlbati leen caméra yi waaw joxal léegi nen nuyoo la ne wax kii mu nuyoo kii sama la waaw mhm. xam na ah. dafa bu ngeen ko laajee bu tontu leen parce que moom moo ne si buntu kenn ku ñëw. kon li ngay laaj bëgg karaama yi nga xam si ne sëñ bi da koy def. Mm-hmm. yoo xam ne ne euh, même technicien ñu ne da koy mm-hmm. day day day gas génne ko dara wala yu mel noonu. Mm-hmm. waaw de ñu ko. waaw. waaw maa ngi tudd Seexuna boo ñu ko doon xamle ak moom xëy na dina eh, kii sax nga wax ñu lenn ci ay baati seede wala ay témoins yoo xam ne yow kon yaa ngi yëngu ci moom. Hmm. salaamaaleykum waa waa àdduna salaamaaleykum waa senegal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu seen site bi 24 actu di leen jaajëfal bu baax di ñaan suñu borom aussi teg seen site bi loxo ba mu jëm ca kanam ba àdduna bi yëpp xam ko li ngeen wax nag te laaj ko ci ci sëñ sëñ sëñ mi ah mun nañ ci def ay témoins parce que am na fuñ jot a jaar ndax li ñu xamale dafa am foo xam ne fa lañu ñu xamante jékki-jékki wuñ nii rek xamante nii dafa am fu ñu xamante am fu ñu jaar am foo xam ne tamit jaar na fa ak ñoo xam ne ñun ñoo ñoo leen ñoo leen boole ñoo ko ñoo ko booleek ñooñu mu jaar fa ak ñoom ci wàllu ay liggéey yu bëree bëri xëy na suñu bëggee détails yëpp sax dina dina xaw a jël temps waaye nag ñu mën ci jukki benn bañaar ba ñett rek ndax bu fekkee man ko man sama kaala man yàlla dafa dogal dama nekkuma woon nekkuma woon fii euh, Sénégal euh, nekkoon naa hors Sénégal ci maanaam bitim réew xëy na soriwut lool sax réew mi waaye nag foofu laa ëppoon sama yëngatu yàlla di dogal ñu nekk foofa ba am fa ay jafe-jafe dañ fa doon sàkku xam nag dañ fa doon jàng ba yàlla dogal ñu am fa ay jafe-jafe ci wàll woowu ci la ma sama benn grand frère boo xam ne moom jot naa jot jot naa xamlante woon ak moom ma wax ko jafe-jafe yi nga xam ne ci lañu ci lañu ci lañ ci lañ ci lañ doon dund moom itam mu xamal ma ne daal am na fi koo xam ne daal euh, jàpp naa ne su ma fa demee say say say mbir mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa saafaraw te li ëppoon ci te li ëppoon ci suñu ay jafe-jafe booba mooy dellusiwaat senegal loolu moom moo ñu gënoon a jafe bëggoon nañ ko waaye euh, nekkoon nañ ci benn benn ruq boo xam ne bëggoon nañoo ñëw mais mu ñu woon a ñëw te du problème mu mooy moo ñu te woon a ñëw yàlla dogal bi ñu boolee ñu déggante. ñu wax ko suñu yitte bari woon nañ waroon nañoo mat fukki nit ak juróom-ñett euh, ñu déggante ñu waxtaan ba euh, déggoo wax dëgg yàlla bi mu bi mu bi mu defee li mu def app bi mu ñu joxoon bi mu matee yaakaar naa suma ma jumu fukki nit ak juróom-ñett fukki fan ak juróom la ndax def nañu kenn ku nekk benn bis laa lay liggéeyal génn guddi laa lay génn guddi laa bu fukki fan ak juróom-ñett yi daal yaakaar naa matee ki ñu téye woon moom moo ñëw bàyyil ñu boppam waaw ki ñu téye woon moom moo ñëw bàyyil ñu boppam ba ma bi mu ñëwee bi ñëwee Sénégal nag ah yàlla dogal na ñun ñu ngi xay ñu ñu yëngu ci yeneen i yitte waaye nag mënuñu koo bàyyi parce que nit da ngay toll ci ay xat-xat yoo xam ne bu la ci nit jëlee mënoo koo fàtte daal mënoo koo bàyyi. bi loolu amee it wax dëgg yàlla boole naa kook samay samay samay nit ñu bari ñu ci bari ñoo xam ne nekkuñu fi sax am na ci ñu bëri ñoo xam ne bitim réew lañ nekk ci wàllu kayit yooyu xëy na moom day day am yu bëri yoo xam ne du ko mën a wax ndax euh, xam naa ne lii mi mi yaakaar naa mi ngi doog a am wala bu fekkente ne am na it man yaakaar naa musuma ci mësuma ci teg sama bët waaw waaw su fekkee am na it musuma ci teg sama bët xëy na moo tax yu bëri waaye daal li ma mun a li ma mun a seede daal mooy xam naa ne yàlla may na ko loolu moom loolu moom man mun naa ko seede yàlla may na ko ci fànn yu baree baree baree baree bëri ndax euh, comme xëy na dañoo nekk ci euh, internet bi day tasaaroo ñu bëri dañuy bëgg te ñu maanaam ñu bëri duñ bëgg kuy tudd seen i tur waaye bu fekkonte ne xëy na ñooñu dañuy permettre pour ñu tudd seen i tur danañ tudd ay tur yoo xam ne fii maanaam daañu xam ne xëy na yàlla may na ko relation waaye nag loolu xëy na duñ ko mën ndax comme tàgguwuñu tàggoowuñu ba ñooñu mun ñooy wax nañu pour ñu tudd seeni i tur duñ ko mën tudd na ci kenn rek muy Pape Diouf wax dëgg yàlla nitam la man ginnaaw yàlla ci moom laa ko xamee ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. waaw loolu daal mun nañ ko def see ay mun nañ ci mun nañ ci def euh, ay mun nañ ci def ay témoin wax dëgg yàlla euh, ci wàllu karaamatul ayni yooyu ngeen di wax it loolu moom lim ci man bari na <laughs> loolu moom. loolu moom <laughs> ci man moom man man euh, kiiwuma waaw comme liggéey karaamatul mooy li nga xam ne nit ki da parce que ñun jàng nañ alquran jàng nañ ba mokkal boo moo boo li ñuy wax donga daara bu fekkee ne xam nga donga daara ñoom fit la ñuy wax buñ la fitee dañuy jukki dara ci biir alxuraan wax la ko nga yeggale aaya bi loolu mooy fit karaamatul xayn yi mooy li nga xam ne si da koy def si bëti nit loolu ay tappale la ñun dëgg lañuy def lu nga xam ne kenn du ko def te lu ñuy def tey dañuy sawee bakkan moo ñu indi fii yéen bu ngeen fii ñëw man programme wu ma leen loolu moo ñu andi fii léegi nañu sawe nit ki ñëw leen ni tourné leen ni tourné leen caméra yi waaw tourné leen waaw kiyal nii eh ah, jëlal jëlal foofu noonu ñu liggéey li ñuy liggéey ñun dañu bëgg a dem fi mu dem ci kër gi cere nag bu ngeen bëggee cere moo fi am def leen ni jëlal kii bi jëlal am kes ba xam nag nañ seetaan ba xam euh, ki nga xam moo di Thierno comme li mu ko waxe woon yi muy def lañ ko fekk ci digg àll bi fas yéene nañ leen ko won rek ànd ak yéen ci nga xam moo di ci seen site boobu di 24 actu am ma jam de am lu ma jam de gis léegi ñu ngi foofu ak Thierno ak taaru benn bi ji li ma ba léegi ñu ngi noonu ak ki nga xam moo di Thierno fii nga xam ne fi lañ ko fekk muy yëngu tey dégg ngeen ko nag ni mu ko wax ndax nee nañu bi ngeen di ñëw programme bi ma leen woon ndax da tey moo waroon a bakkan am koo xam ne nii moom la defar ci fii ay bagages boo xam ne ni nag ci li mu wax nee na yàlla dafa dogal bakkanam dafa waroon a dem mu ñëw di ko xeetle si gis ngeen ko noonu ci àll bi moom la ànd ak yéen ba léegi gis ngeen. ci ñu ngi fii ci digg àll bi nag tey fas yéene leen ànd ak yenn spécial bi nga xam moom lañu ànd ak Thierno Thierno Sow ñu fekk fii ci àll bi léegi yéen a ngi gis ne xam ku ne xam-xam amul ku nekk nag ku ne xam-xam amul ku nekk nag danga danga da nga da nga da nga koo jàngul waaye nag lii lii lii lii nii moom. jafe na tungoon di du teewul ñuy nataal niñ koy waxe kii ci digg àll bi lañ ñëw fekk ko fi gis ngeen ba léegi ñu ngi ànd ak moom ah, laa ilaha illallah lii moom tey laa ko mas a gis lii tey laa ko mas a gis lii àndu sil bàyyi la xat euh, lii lii lii lii lii lii lii waaw niital ko gis ngeen kim doon wax naan dafa waroon faatu liggéey bi ñu ko defoon dégg nga ni mu ko waxee même ginaar googu nga xam ne moom lañ moom la génnee foofu gis nga ko nee na ko bu ginaar gi deewoon rek ba kanam day daal di lii nag moom maa ngi koy doog a gis lii moom maa ngi koy doog a gis lii maa ngi koy doog a gis lii maa ngi gis tungul du teew ñuy nataal tu mhm. tungul du teew ñuy nataal lii maa ngi koy doog a gis ndax pax mi kenn ku nekk yaa ko gisal sa bopp nekkul pax muy suuloon gas bu metti lañ ko doon gas ñun ay témoins lañ ci ñi fa nekkoon te yàlla rek a tax ñuy wax lii ñuy wax kon nag ku naan xam-xam amul ku nekk da ngaa génn sa kër bàyyi dégg nga ko yaa ngi koy dégg yaa ngi koy dégg yaa ngi koy dégg yaa koy dégg yaa koy dégg mi ngi wax ak ginaar gi yaa ngi dégg mu ngi wax ak ginaar gi yaa ngi dégg mi wax ak ginaar gi mi ngi wax ak ginaar gi gis nga laa ilaaha illallaah kon nag kon kon xam-xam xam-xam am na ku ne amul ku nekk rek dégg ngeen comme ni mu ko waxee kon xam naa euh, boobu gis ngeen ki nga xam ne moom mooy euh, na Sow ni mu ko waxee nee na li nga xam ne liggéey la boo xam dañ koo suuloon dafa ci xam àll bi am na beneen bu ñuy wan waaw waaw waaw waaw am na bu ñuy wan boobu waaw waaw euh, demal micro bi demal micro bi ci wàllu béjjén bi. waaw béjjén bi sànq bi ngeen koy laaj ci wàllu question yi muy wax lu ngeen di nu muy seete mu ne am na juróom-ñaari façon seet yu bokkul mais bii mooy bi nga xam ne moom tey bu fekkonte ne tey da ñëw ak ay ak sa ay jafe-jafe yu doy waar moom mën na laa bañ a wax dara lii lay lii lay lii lay indi rek. kii mooy kat waaw kii moom xam naa moom <laughs> moom mooy wax tur bi man sañu ko mais. bii kii loolu nag nañu Sénégal bi moom xam naa ne xam naa ne loolu yëpp mënuñu nekkal ni pour ñu kii ko waaye nañu bàyyi bii waaye kii moom day waxal boppam dañuy defaat yeneen vidéo ñu moom day ñëw fii day wax moom yéen xàmmee ngeen ko day waxal boppam kay man du ma sonn ma de moom mooy wax yépp ah ginaar gi kay mu ngi nii bu deewoon fii kii moom mi ngi nii mu ngi nii kii ginaar la moom dañ ko liggéeyoon sànni ko. dañ ko liggéey woon def ko ci affaire ganaar mais du ginaar buy dund mais gis nga kii su fekkoon ne bàyyi nañ ko mu am 6 mois ginaar bi liggéey boobu 6 mois lay jàpp ginaar bi day dee yàlla xam na ko man de ginaar gi xaw ma fu mu jógee de yàlla xam waaw waaw yéen a ko gas yéen ko sulli mu ngi nii waaw mu ngi noonu waaw mu ngi nii nag ginaar ginaar fu mu doon nii wax dëgg yàlla su ngeen ko mu ne xam naa ne pepp soxla na ko trop parce que gëj na bii moom dara nekkul si moom dafa dafa gisoo nu mu mel nii sax bugg na lekk bugg na naan kii même dimbale ginaar gi rek jox ko mu lekk sawe nga benn bakken kooku da doon faatu li mu la nii du dañ da doon faatu yéen sëriñ yi nag ñu ngi leen di ñu ngi xaar sëriñ yi ko man tamit damay am yeneen vidéo yu may dugal yii lii lu ndaw la parce que da ngeen ma fekk ci liggéey fee lañ ma wooyee ñu wax am ñu la seet si léegi kon loolu fekk ma ci liggéey xam man fii suma bërëb liggéeykaay la mais nag <laughs> kiiwuma fii loolu moo tax waaw ci numéro bi rek 78 156 34 41 78 156 34 41 ak 76. loolu kay amul ma dem di ñëw <laughs> boo boo geesaay ñu wax waaw ñu wax la sa soxla bi eh bàyyil deko na <laughs> hmm, hmm. waaw waaw léegi hmm, jàkkaarloo ak ñun eh, ñu leen ko waxe woon kon tungooni du teew ñuy nataal ndax lii moom ñun ñi ñu àndoon ñëpp ñu ñoo ko gisandool suñu bopp mooy lii nga xam ne mooy gi nga xam ne feeñal na feeñ na fi tey te li nga ko waxee nee na moom dëgg lay def ci da gas foo xam ne nii fu dëgëroon la mu ne ay ay ab liggéey la boo xam ne sànnoon nañ ko jamono jooju nag xawoon nañoo jaax ndax man bi ñuy gas man gas bi jaaxaloon na ma xaw ma lu ñuy gas ma jékki-jékki ak ginaar génn maa ngi ñi ma àndal kon wax dëgg yàlla ku ne xam-xam amul ku nekk rek da ngaa génn sa kër baay kon daal Thierno ñu ngi lay sant baax li gërëm di jéglu baax a baax nag àll bi guddina ku gis image dana xam ne ñun fi waxtu bi ñu fi ñëw guddi na trop waaye am na loo xam ne bëggoon naa nga sànni ko muy lu weex lii la tiim maanaam lii nii lii lii lii lii lii lu mu doon Thierno laajal ma loolu Thierno joxal ko micro ko micro dëgg la parce que xam nga dégg nga ay picc yu nekk foofu te fii picc yi fi ëpp mooy tan waaw ñoo fi ëpp loolu picc la olof mu ngi koy wax kelaw tew ñoom ñoo nekk foofu noonu mooy kelaw tew olof loolu la koy wax waaye lii prothèse la gis nga blanc bii ngeen gis ni mooy dangay wax xam-xam bu ñuul àdduna dafa weex Sénégal defe naa ne drapeau bi vert jaune rouge la rouge mu ngi nii blanc mu ngi nii léegi nag loolu boo buggee gëstu dëgg-dëgg am na ci yoo xam ne ci xam-xam buñ la waxee butéel bi nii li ko li nekk ci suufam alxuraan la moo tax fu sell la nekk fu mu nekk lépp dafa weex tàll dafa set wecc yére boo xam ne amul sobe kii lu ma ko wax mu def ko butéel bi deful dara mais su ma neexee mu dis gann mu fees del képp ku ko téye nag butéel bi fees say ajo faju na <laughs> dootoo ñàkkati <laughs> waaw waaw baax na waaye nag ah, dama leen di jël comme simple daal yéen ngeen ah, jël ko parce que ñaar la fi am na bu nga xam ne moom. mooy waaw waaw mu ngi ni waaw waaw ñaar la fi waaw bii la. boobu ak bii bokkul. bii day fees. waaw bii nag. Euh, bii moom bii moom moo moom ñoo ànd meer mag ak rakk lañ. waaw loolu moom luxus loolu gone yi nga koy wax gone yi. gone yi ñoom ñoo xam loolu mais man dépassé naa yow mbër yi fàtte ndax mbër yi daa ngi yaa ngi jëflante ndunkurunkug muus ku ko am ma aj la ndunkurunkug muus ku ko am ma aj la aj la ñaari at kay mun naa laaj ñaari at yi bu weesoo nga xam ne délai bi jeex na mu ñaari at yi ñëwaate jeexee nga jëlaat nga jëlaat kii bi muus nag xaw ma da nga koy rey xaw ma da nga koy def nang waaye yax bi nekk fii daal mooy ndunkurum boobu laa soxla waaw boo ma ko boo ko joxee sax mun naa ko essayer ci ñaari booy yow nga bëree ak moom ba xam di nga ko daan jeex na tàkk waaw jeex na baax na jërëjëf jëf jërë ngeen jëf